danu wax ni kii ñëw mooy Abdoulaye Diop Khass Serigne Abdoulaye Diop Khass borom tur borom tur ki nga xam ni képp ko am soxla wala aajo boo demee ci moom sa aajo fa ki nga xam ni boo demee këram ak jàngoro joo mën a indi ak problème boo mën a indi mu teg la ci kaw mbir mi dëpp la bindee sotti rek digal def li la sa aajo fa kooku mooy Serigne Soukhoulou Bathie damaa bëgg képp ku nekk ci stade bi nga tàcc Abdoulaye Diop Khass tàcc leen ko bu baax a baax mu ngi noonu léegi nag am nañu war a dal Cheikh Mbaye Peex Mamour Diouf ak Thierno waaw mu ngi noonu mu ñu paree ñu présenté ñaari bëri ay ca André Sambala macha allah ñu ngi fii ci stade bi drapeau Abdoulaye Diop Khass en direct arène nationale lu rëy alaaj Kabir Samb ki ñu àndal mooy borom réew mi borom dëkk bi borom Sénégal ki ñu àndal mooy Abdoulaye Diop Fass ànd ak kenn sukkandu ba kii jàmbaay dem euh, nee naa leen bas bi lu muy rëy rëy rëy nag bu leen fàtte Kaliphone lañ ko dëjee waaw bas bi lu muy rëy rëy rëy rëy bu leen fàtte ne waaw muy bas bu rëy tuut garam lay toll lool man nag am naa jom xaas ndeysaan nit ku baax meilleur gagnant. mais sunu people loo koy wax pour DJ Yves. waaw sunu people maa ngi koy laaj rek sànq. DJ Yves nit ku baax la. di sama xarit di def liggéey bu am solo. si wàllu média. dana ñaanal jàmm rek ak salaam. yaa ngeen jëf. Solo. ñaari góor yi takk na mu leen. war nga war na la war. sama kër gaa ngi nii. dama lay woy nga may dara. kooku yàgg naa. maa dem président ma ngi ko jàppale. ma ngi ba mu jeex. Khalifa sama waa ji. waaye dama ma ñu kontaan naa. ma nekk ak sama sama doomu ndey. ana Khalifa. macha allah jërëjëf maa ngi ñëw waaw macha allah non problème macha allah waaw donc gars yi ñu ngi fii ci Pikine ah. grand ñu déggandoo ay. what's happening. borom drapeau bi wan nga ko ma ne ko ñamay kee lu baax li nga def rek tey maa ngi doon jaay rek la ko rek ci làmb. non maman ma ñëw. Thank you.

waaye su ay ay ay dina ko dem fi mun naa ànd mun naa yow yaru na teey na baax na vraiment waaye su diggante ak Lamine bi Lamine dañuy wax ni tey Lamine ba ñu xam ne dafa yàgg lool lool lool ñu bëri sax dañoo fàtte lii tey la ay man ba may xam ak Lamine Thank you. parce que ni ko ko soxla woon rek. waaw monsieur Mbarré Koungheul. dañuy def rek mën naa kon fi mu noo gisee bis bi. waaw.

Lamine ma dem wala. yaa ngi dem nañu. ñëpp ñu dem ma dem ma. loolu moo ñu. kontaan tubaarkalla macha allah su ko raw ci ay morom gën ci ay morom te tubaarkalla ba mu jàpp ba tey moom su salbe nag koy ñaan yàlla yàlla ko fa dëgg dëgg neexul nag ki la faj ak ki la fajat ak ki la dompat ak ki la kaat ak ki la jàppaanga ni bu ngeen di nërëm nuroo yow war a jàppaanga ñu ni nërëm gisatum dara xoolatum dara yow rek lañu oh. saa waa ji nag seppali bàcc la moom tubaarkalla macha allah bu ngeen su ko yow doo benn jéeg benn jéeg ku mel ni yow yow na la baa xaas taxaar xam ni fu mu la fa nga teg as nit ku ni jeet nga ni ñu ni du yàgg nga ñu du sax nga ni day sax yaay jaara bu sa baali maami Sëriñ Bamba maami Sëriñ Fallu maami Sëriñ Saali borom mbir borom jàpp si ak borom gaawal borom dara mu dara moo xaasal sa jëkkër ji moo xaasal sa waa ji moo defal sa waa ji ba mu mën si sëriñ si raw si sëriñ si mën si sëriñ si dama ni bu kenn soxor bu kenn iñaan dam naan jox leen mbir ne mbay garas waaye bu kenn soxor bu leen iñaan jox leen poj mi sëriñ garas kii mii toog xaas mii toog tubarkalla sëriñ Jalle si diini bàyyi suñu Abdou Karim Mbacke wala dama ni sama xol naa fees barke yonent bi yàlla na si jàmm yàgg yaa ngi tee maa musoor 3 mètres ki mooy mboose ki mooy mboose moom rek xam nga ni nu mu tudd jeeg ji toog leen jàkk ji toog leen bu kenn war xaas xaaru moom kenn keneen war tamit ñu toog waaw waaw ay mboose eh, ay mboose Hey, symbol. Symbol. What up? ki ma ma ne ko yow yëgul xew kii meer nag moom kenn. dama ne kii ma ki ma téye dama ko yëgul xew ba ma ne kii xamul kenn. Hmm. Cheikh Blaise borom xaas. Hmm. borom bis bi. Hmm. muy as gor nit ku baax di ku xam teraanga dina sotti mu tànn maam mu tànn ba jóg maam ma ne tokki moo jàngee kër kër baam te tokki Samba Diop ma ko lay Jolof dem Tuuru. dem jàngi mexu grammaire arabe ñëw tuddoo ko mu xadamaatu kokki maa ma njëkk a tuddee ko mu xadamaatu kokki Sénégal grammaire arabe fii Sénégal ah. dañ ko tuddoo ko mu xadamaatu kokki jàngal mag ñi Maxtaar Ndaam bàyyi ko Ndaam mu mu xorja bàyyi ko mam maaram allah duy maamam hmm. sa xawar Fatma Diop ko du Sam Mbaak Aïssa Taak Fatma am naa moom sept maa njëkk sama këram hmm. sama appartement këram deuxième may tëj tëj presque six mois sama waay jàngi kenn du moom moom ni may téeméer junni ndeysaan dama ko doon dégg rek maa def ay jàng 2017 tuddee ko xaas mu ne ma mu ne ko laa may téeméer dina ko ma téeméer dina ngi nii. c' est ça mu ma ko ah mu ma génn waaye maa ngi isaab rek ñu koy sama waa jàng nii kenn moom tamit. nit ku baax la jërëjëf. donc comme ni ngeen ko xamee ba léegi ñu ngi fii ci stade bi euh, arène nationale euh, di drapeau euh, waaw Lirou a ngi ni doog a ñëw. di drapeau sañ xaas ah, fii ci arène nationale macha allah ah sañ xaas ne ma Kaliphone la bëggal sama bopp fu may dem yaa may gunge ndeysaan nit ku baax yéeg-yéeg rek moom solo yéeg-yéeg rek man si kaw suuf boo ma yéegee rek am nga ma boo ma yéegee rek am nga yéeg rek waaw ah, ma yéeg ah, man ku ma yéeg rek nekk nekk sama buur de waaw waaw rek liiru jaan a ngi noonu. Hmm, waaw. jàmm gën ji mën nañ ne jeex na sax waaye sañ xaas daa jënd oto am kum ko bëgg a décorer waaw muy BMW bu tarkala waaw loolu def na rek te yàlla tax xaaru ci dara waaw waaw Lamine ñëpp di seetaan Lutte TV ba saa yi en direct waaw su ko def seet xaar dafa def lu rëy ndax li mu def suñu xol da koy seet képp kuy mbër ak képp ku nekk ci ak lu làmb li la xaar defar suñu xol da koy seet jël lu mel ni oto yëkkati ko décoré ko Lamine Lutte TV Lamine yàlla na yàlla fa cat xaalis yàlla na yàlla fa cat li nga bëgg yàlla fa cat vraiment li nga defal nag ñun ñëpp ko def te ñun ñëpp ci kontaan ndax at bi daal vraiment daal moom koy ñaanal yàlla na rapport jàmm amul rapport di ñaanal sama rek vraiment suñu rek la suñu xarit la lépp ñu ñoo ko yàlla xam ci ko vraiment nga téye ko téye bi ko téye suñu xol seen nekk ñoo ngi leen di ñaanal yàlla parce que cat ak laam yi moom daal man vraiment amuñu lu ñu wax ndax li nga def surprise bi nga def woo ma dama la sama ñëwal maa bëgg nga teg sa bët maa bëgg nga gis ko ma ñëw fekk ma leer am na yenn doxale vraiment waaw waaw jubóo lañu waaw bu pare mooy li ma sol xaas ko jox li ma sol te lee ma sol moom tam xaas ko jox waaw moom xaas ko sañ na ma jóg xaaral ko say seet kenn xamul lu muy dural fi mu ne nii xaaral yàlla xaaral daal boo koy ñaanal. mën rek daal waaw bi laaj moo ma woo ba pare kon ni maa ko daaj ah maa ko daaj xaaral maa ko daaj moom moo ko jox vraiment maa ko ñaan li nga bëgg yàlla ko yàlla ko yàlla sama rak yàlla yàlla ma daal yàlla jërëjëf kontaan oto bi daal vraiment ñoo ngi koy jiitoo di ko sagoo ndax li nga def dafa rëy li nga def dafa rëy waaye na ràpp ak jàmm Alaaji Abdoulaye Diop Fass bëgg nga réew mi de suñu loon ñu waaw léegi moom it xam na ko ma ne ma jaay sama garaandoo ak leneen leneen ah, jàmm problème def ko ci lamb dafa mel kay baa ngi te Moustapha yoo xam ne moom la ñu naan làmb ji amul léegi oto moom la liggéey léegi lan laay liggéey. jàmm sax la dëgg la kii mosuma jooy ci kanam kii moom laa la yàgg mosuma jooy ci kanam. barki alxuraan kanam kii maa ngi jooy jooy tey mosuma jooy sa kanam bi combat bi yàq ci jooy jooy jooy. bi muy yàq dama ko dem jënd saa nangam seeraas def ko sa am na wala amul ma ñëw ci sa xar bi ñu ne làmb ji amul. man lan moo gën a métti. bul jooy bul jooy. ak leneen ak leneen ak leneen. waaw léegi nag fu mu toll li may wax moom mooy. waaw li may wax moom mooy. waaw man sama kalaandoo laa bëgg. xaasa ngi sumbuloo ngi. waaw sama kalaandoo waaw. donc comme ni ngeen ko xamee grand combat bi naroon am. wulli daa mel ni ñëwul. loolu la saa waay toog fii nag di xaw a kii nag. il faut que ñu tijji mu yaatu ñu may mbër mi jël drapeau bi mu ngi nii. mbër mi jël waaw moo gagné donc ngeen gis ko ñëw na ñu daal di koy déglu. Lamine waaw sañ xaas mu ngi nii waa ji la jëndal oto bi muy Lamine donc Ali mu ngi joxe caabi ah Mohamed Ali nag champion de karaté la jóge depuis Paris moo sol yére bu weex bi fas yéene fekkee bés bi nga xam ne mooy drapeau sañ xaas donc sañ xaas daal di jël oto daal di koy décorer Lamine Lamine nag ab journaliste la buy yëngatu ci wàllu làmb ji waaw sañ xaas may ko oto décorer ko def na lu am solo def na lu rafet macha allah. dégg xoolal gaynde Thank you. la mi ngi leen taxaw yàggul la nga bare même te bi muy ñëw fitna la ñëwee ndax tardé naam naam gaay love nice maa ngi naan direct nii ma pare woon donc caabi oto bee ngi noonu ñu koy joxe en direct ah muy Ablaye Diop Xaas moo jël oto bi daal koy may lamin macha allah marque BMW. waaw ah. yow loo amul si lamb a loo am da nga a am. macha allah Xaas jël na oto BMW daal di koy may Lamine macha allah def lu rafet def na lu rafet macha allah. macha allah jox na ko oto yi en direct ñëpp di gis sëñ Ablaye Diop Fass def na lu rafet jël oto BMW daal di koy may Lamine di ab ndaw boo xam ne mu ngi yëngatu ci mbiru làmb macha ñuy ñaan nag mu ràpp ak jàmm waaw mu ràpp ak caabi yeegi noonu sëñ bi di ko joxe. macha joxe na ko joxe na ko macha allah macha allah. macha allah. maanaam loolu waaye jàmm bàcc li seen bëri tubaarkal la ànd ak sa borom kër gi tubaarkal la yàqaloo ko dara yàqaloo ko dara sama goro yàqaloo ko dara te jigéen yi woo ko barke Serigne Touba ana sama goro fekk nga ko muy joob nag waaye da nga yokk sama goro bi yàqaloo ko ay nitam say njëkkee gi dar la naa ko bàccee say njëkkee gi dar la attention xaas attention donc muy événement bu rëy fii ci arène nationale lamb ji fi amoon tey ñu tuddee ko seen xaas waaw nit ku baax nit ku yàlla defal jàmm ak salaam ndeysaan di faj doomu aadama yu bari te yàlla tax boo ñëwee këram day fees del nit ñi dañuy rang boo ñëwee ak ay beeke boo ñibbi fa ngay bàyyi boo ñëwee puus boo ñibbi fa ngay bàyyi sa chariot tarkala laftet macha allah ndeysaan muy nit ku baax waaw mu gis Kaliphone rek bëgg ko te yàlla tax Kaliphone ne ko sëñ Xaas bëgg naa la te yàlla tax et vie est belle macha allah waaw waaw waaw wax ko ci kaw ndeysaan ngeen jëf la merci merci la famille jërë ngeen jëf ndaw ñi nee nañu Californie yaa fi ne ndeysaan jaajëf waaw dëgg la am leen jàmm rek yéen sumbuloo ngi noonu waaw tarkalla ndeysaan macha allah donc gars yi ba léegi comme ni ngeen ko ñu ci live bi fii ci stade Alassane euh, arène nationale bu Pikine euh, am lamb bu rëy bu fi amoon nag tey drapeau Abdoulaye Diop Khass macha allah bëri ñëw bari ko si fulla ak ci fayda ci digg bi nag Abdoulaye Diop Khass dafa jënd oto marque BMW daal di koy sargale suñu benn frère ah, Lamine donc Lamine nga xam ne dafa yàgg yëggatu si mbir lamb Abdoulaye Diop Khass ne ko damay jënd oto may la ko te xaaruma si dara comme ni mu leen koy waxee rek Abdoulaye Diop Khass nit ku baax la. liggéey pour un Sénégal meilleur moo ko tax a jóg nee naa leen bu ngeen ñëwee këram lundi mardi mercredi jeudi kenn du am fu mu toog nit ñi dañuy rang day liggéey ba 23 heures si faj na ku ne ci mim réew wallaay bu demee Gambie armée moo koy teeru Gambien yi bëgg ko ndax liggéeyam bu rafet bu muy def boolewul dara ki wax ngeen Kaliphone bu jaay nit bu ma gisuloon lu muy liggéey du ma toog fii di ko wax parce que man bindeef moomu ma waaw ma bëgg waaw def ma nekk bitim réew minute bu ne Ablaye Diop passé kat téléphone am dama Kaliphone wuyul sa sa sa jigéen sumbulu Kaliphone maa la bëgg Kaliphone ñëwal kër ga Kaliphone kañ ngay jaar ndeysaan ba yàlla dogal na tey laa doog a jaar macha allah moo tax ma def ko live en direct Sénégal yëpp gis liggéey bu am solo bi nga xam ne Ablaye Diop Pass koy def ci biir Sénégal yàlla na ko yàlla jàppale. Euh, euh, lutte bi dafa jeex El Sow dafa jeex actuellement lamb ji daa jeex. ok wulli waaw wulli dafa waroon ñëw mais dafa daw daa mel ni waroon bëril loolu moom du yoon moom drapeau bi ma yóbbu maa ngi en direct ma bàyyi direct bi di ñëw foofu Rama merci depuis Italie maa lay nuyu sister maa ba Balde maa ngi nii plateau bi dañoo nekk plateau maa ngi jëm xaaral ñu pare dañoo nekk plateau bi non dañoo pare bi wagul jam Lamine mën naa ko libéré mën naa ko libéré mën naa ko libéré mën na ko libéré waaw dina ñëw dina ñëw mu laa ñëw ci nit traité daa war jaloore bu nekk ngeen def ci nit traité la mais xale yi nangu woon leen di jël ñu ne kon nañ dem jëli ñaar ñi mën ci nit traité la boole leen ñu bëre grand mu tombé nag drapeau boo xamante ne ñëpp bëgg bëre grand tey nan nga gisee tey waaw loolu la mais combat bi nga bëre tey dañu gis nga déparé ko xeex jeexal ko bëre moo tax ngay njëriñoo waaw. jaajëf jaajëf bëggee sama gaay ndeysaan Californie yaa fi ne rek ngay dégg ñëpp kontaan ah, waaw ñëpp bég ndeysaan ci bés bu rëy bi bésu Ablaye Diop Xaas ànd ak madame Sumbulu Bathily jégadiw ko benn yoon macha allah nit ku baax waaw baax rek am solo

mënuñ jël fi ñu gaar oto bi baaxul. ñaar oto yëpp ñu ngi gaar a baaxul. bu weex beeg ak bu ñuul beeg. bu weex beeg dugg jël sëñ bi dugal oto bu weex. dugal oto bu weex. doo dugal oto bu weex. bi mu ko touché. am na la moom mu dugal oto bu weex. parce que bi mu touché Pape Khadim Mbengue merci. macha allah vraiment Cheikh Richard te li mu wane fii am na bokk li nekk fii ci biir géew donc tey dañ ko war a jox chance il mérite dañ ko chance parce que kii mën na bokk ci champion xale bu lam ay mag ñi li nekk lam dañ ko war a yaatal. je pense que dañu war a joxante chance sant monsieur le maire bu baax a baax. gis nañu ay biens yu bëree bëri ma limeer dafay tamit sama ay morom yi nii nii nii dañuy def si combat bi Demba Mika salminaam depuis Mauritanie waaw waaw maa ngi direct moo tax it. xel Jangan lupa ya. def ko nii mu ko def mu jëkkëral ko ñaanal jëkkër si ko def kon naa ko ko su de kii dañu koy jox gars yi ko bëri gars yi kii mooy ci la mooy fii ay ñoom ñu ko waxee sax ñu ko sëriñ daal dañu koy wax dañu wax ay ñoom France ay ñoom ñoom ñëpp ay naan même vainqueur ba ñoom ñëpp ay naan te tey capable ñu nañoo ñu leeral waaw nañoo ñu leeral il faut nga xam ne Maam Sarr kii maire Mbao dafa war a teg dafa ñëw boo xam ne. Mbao kenn boo koy jigéen yëpp. dañuy jigéen boo ko jël. mooy ñoo jigéen ñun ñëpp. kan la noonu Abdou Karim Sall waaw Abdou Karim Sall monsieur bu Mbaaw ndaw ñi ne nañ kontaan nañ ci yow waaw nee nañu yaa jënd ticket yëpp xale yi jóge Mbaaw ñëw supporter seen mbër mi waaw kooku yàgg na def loolu monsieur le ministre Abdou Karim Sall Lamine damay ñaanal damay ñaanal sama sama frère ak seen damay ñaanal sama yaa ngi sonn si tey jii dafa ne si ay fan dafa ne si ay fan di ñaanal sama grand di ñaanal bu baax a baax waaw di lancer appel état Sénégal di parce que mu ngi bëgg a gën a jàpp ñaanal sama benn sama benn sama benn rakk Ousmane Ousmane Nooré ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax moom di caabi ko wéete ginnaaw di leen ñaanal bu baax a baax Lamine di ñaanal sama doom lay ko ñaanal premier janvier suuf la nekk si yàlla na yàlla may na mbaaw gépp a ngay jàppale Lamine mooy ñaan préparation bi yëpp maanaam ñaanal maanaam maam Mbaye ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax mais yéen ñëpp di sant sama yaay bu baax a baax a baax. ndax sant sama papa bu baax a baax a sant waa diaspora waa diaspora 100% 100% sama waa diaspora maa ngi sant bu baax a baax gis naa taxawaay bi gis naa jëlee gis naa taxawaay bi. bilaay bu ma limee bu ma limee rek damay jóg. ëmb suñu grand ëmb bu ma limee rek damay jóg billahi maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp bu ma limee ma doon lim tey yi fi laay fanaan inshallah ñu ngi si jàpp inshallah monsieur le maire ko def sax sama la sama la Lamine suñu xool seet nañ ci Abdoulaye Diop Khass ndax la mu waxoon lépp def na allah donc jaajëf. donc lii moo amoon fii ci stade bi fii ci allah sëñ Abdoulaye ñu tuddee ko drapeau macha allah macha allah Abdoulaye Diop Khass. macha fii la woon ci arène nationale bu Pikine ndeysaan Abdoulaye Diop As ànd ak Soumboulou Bathily ko fii ci arène nationale lamb ju amoon fi tudde woon ko drapeau bi mu ne ni macha allah bés bu tuut borom lay tollool ñëpp kontaan si ñëpp kontaan nee nañu koo fajul du wér. ndeysaan yàlla sunu borom moo ko denk loolu. nee naa leen bu ngeen ñëwee këram. suba ba ni nit ñi dañuy rang. fees dal waaw muy faj rek te yàlla ta xale bu ndaw mais zéro faute. ndeysaan mu ñëw mu ñëw def lu rëy tey. mu ñëw def lu rëy. la Ablaye Diop Khass def jënd oto BMW. daal di koy may journaliste bi ne ko jëlal ndeysaan ah Abdoulaye Diop Fass ne ma la bëggal sama bop ma ne ko ah man de ku ma bëgg ma bëgg la ku ma yëg ma yëg la ku ma tin ma tin la moo tax ma bàyyi sama lépp tey ñëw ànd moom gunge ko ndeysaan lii de moo tax ma bàyyi sama lépp ñëw gunge kilifa gi di Abdoulaye Diop Xaas ndaw boo xam ne dafa bëgg réewam lépp luy avancé loo réewam mu ngi ci macha allah waaw waaw waaw ndeysaan naam siyaar waaw maa ngi si direct bi ndeysaan macha allah ñu ndeysaan macha allah ñu di yëgaat ci oto yi rek di ñibbi ah Ablaye Diop xaas tey daf may invité këram fala añee fala yendu mu ne ma Kaliphone may gunge kenn ma gunge ci biir Sénégal ku dul yow ah loolu yëg-yëg la nag loolu dafa fort ci man ndeysaan ñu daal di oto bi borom xaas a ngi ñu daal di jël oto bi ñu daal dem. sët sët sët pardon ñu daal di ñëw alors waaw waaw baax na waaw ëppar ñu daal di ñëw ànd ak bi sëñ Ablaye Diop xaas pardon pardon pardon pardon xaara yëgagul xaara day gunge sumbulu waaw tëjal buntu boobu tëjal buntu boobu soxna si ah Ablaye Diop dafa galant de dañoo ñëw ba si otoom mu ne du ma yëg mu ne damay xaar ba sama soxna yëg otoom mais Ablaye Diop dafa galant seet eh, ziar ziar ziar ndeysaan Ablaye Diop dafa galant Ablaye Diop dafa ñëw ba si otoom ne balaa ma yegg sama oto na sama soxna yegg ba pare ah liy mbëggeel liy fort waaw Soumboulou bàcc léegi noonu daal di yegg otoom ko defee macha allah gunge na ko gunge na ko. Soumboulou yëg na lii da la Ablaye Diop def mu ne na Soumboulou yëg bu Soumboulou yëgee ba pare ma daal di dellu yëg sama oto sa të të të loolu foor na c'est l'amour ndeysaan ah mu ngi wax yi nag mu ngi wax ak ngi defante ak sa të të të tarkalla kenn du moom macha sët sët sët kenn du Ablaye Diop Xaas ndeysaan macha allah ndaw ñee ko bëgg sénégalais yi ñoo ko bëgg ah man de moom a yëkkati téléphone ma kalifon sama kër laa bëgg nga yendu suba nga ñëw nga añ ba suur nga daal di may gunge sa làmb ja direct bi sax laaju ko woon ma ko direct bi sax laaju ko woon pardon waaw ñu daal di bismillah ñu daal di dugg daal bismillah ndeysaan lii rëy na ndeysaan të sax live bi nii de man la neex rek ma def sama live waaw waaw laajuloon live bi de kalifan kaay gunge ma si la mu wax kalifan yow laa bëgg nga gunge ma si lamb ji man la neex rek ma taal facebook bi di wax ndax nag bés du borom lay tollool mu ñëw ànd ak soxnaam si Soumboulou Bathily ñu daal di ñëw fii ci arène nationale daal wuy si li nga xamante ni moom lañ ko waxoon ne ko tey sa drapeau la ale ñu ngi ci yoon bi daal di ñibbi attention may ko mu yëg ndeysaan sa bi sa bés bi yaatu na rëy na may ko may ko may ndànk mu yëg waaw waaw ndeysaan ok moo daa dem lumière tuuti. baax na ma dem ah. baax na. la famille. bés ci bés yi tey. ah Kali est-ce que doo dem TFM remplacer Samba. <laughs> sama gars yi bàyyi leen sànni xeer yi. leen robe bi xam nga ne lii sëñ Abdoulaye Diop rek moo ko mën ci Kaliphone. ah bàyyi lépp ne ko tey yow gunge. door ko direct. waaw waaw. nit ki ku la yëg rek nga ko. ku la tën nga tën ko. ndeysaan donc gars yi je vous dis au revoir daal di tàgg ak yéen sëñ xaas sa bés bi tey ala dawme woon na ñu ngi woon fii ci. macha allah ñu xool. ana Sidi. ana Sidi. donc donc gars yi ñu def noonu ñu tàggoog yéen ba pare incha allah jaa ngeen jëf